bàkk ba jib na générique ba départ jàngat làmb tàmbali mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant mbokk yi nag semaine bi dafa nekk semaine boo xamante ni semaine bu bu satire la ci wàllu làmb ndax samedi ak dimanche yi bu ci nekk am na ñaari journée journée bi njëkk arène nationale la woon kii ko woote woon di Sam production grand combat bi doxoon ci diggante rëm ak ñaa bu ndaw bari na ay combat yoo xamante ne xewoon nañ fa même ci samedi boobu beneen combat amoon na ki ko organiser suñu suñu papa mu ñam production doxoon ci diggante xale bii di BMW ak si Sidi Diamaguène dañuy njëkkee arène nationale rek toftal leen combat yi nga xamante ne jot na fa xew ci xale yi mbokk yi ñu daw arène nationale te dellusiwaat ci plateau ay ca adama ñu dem mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Boy Diouf ak Bébé Zil Boy na léegi waaye demul deuxième combat de la soirée. ni muy songee song bi dafa sori kutoo kutu ko bëgg a jàpp plaqué na koy daan daan na ko Bébé daan na ko. mbokk yi arbitre bi sifflé na ci diggante Valdo ak Balz Valdo door na ko léegi Valdo la eh, door na ko léegi. daanu. dina ko dóomu daanu won ko ndomba da daan daana ko ko eh Valdo mi ndaanaan la de Valdo Balz Balz war na ko ndomba war na wala boog Jona dóor Jona petit allemand ca ga da koo bëgg a takk ko da daan da daan Jona daan na ko. Diagne Baye Fall. Diender da koy eh, wala sit amul sit am na sit am na Diender daan nga sa bopp. maa ngi wax ak ñoom Lat Dior Zolion Zolion ràcc na ba yegg suuf Zolion mbokk yi moo ngem moo ngem lu xonk li yoo taqaay yu bari xeexee Zos Lion nga dóor di kaw na kaw ni ngay xeexee baaxul war na la ndomba est que dina ca génn Lat Dior Lat Dior Zos Lion war na la ndomb Zos Lion war na la ndomb ma ngay dóor ma ngay dóor penalty la dina ko dugalam du ma ngay dóor Lat Dior Zos Eh, daan na ko. George Bouss Papa Laye George Bouss école de lutte Bataillon Papa Laye école de lutte Boy Niang Papa Laye moo nge moo ngeemul xonk li George Bouss moo xajam tent bopp bi George Bouss Papa Laye George Bouss eh jël na tànk George Bouss Papa Laye jël na ko Papa Laye jël na tànk Zoss Bouss eh, a ngi xeex jëlaat na ko da daan wala nu mu koy na ko Papa Laye daan na Zoss Bouss Papa Laye na ko oh. maa ngi laaj ay jugeem mi laaj na rëm ba xam pare ñaa ba xam na rëm da koo bëgg a jàpp rëm da na ko rëm da koo bij na ko rëm bij na ko rëm ñaa bu ndaw rëm bij na ko rëm ñaa rëm lam duñ ko forcé rëm door na rëm dooraat ñaa jël ko ñaa jël ko rëm ñaa eh. rëm ñaa rëm lamb duñ ko forcé rëm xale bi nga bëgg ndaanaan la waaye rëm tamit ndaanaan nga <laughs> lëm rëm dooraat léegi ñaa lu mu ko bëgg a def da koy daan ñaar bu ndaw daan na ko. mbokk yi gis ngeen combat boobu dox ci diggante rëm ak xale bi di ñaar euh, bu ndaw ñaar bu ndaw bàyyi leen ko xel ci làmb ñaar bu ndaw gën leen ko bàyyi xel ci ñaar bu ndaw mu ngi def ay ci làmb waaye surtout bu sumee nga gis état de forme bi nga xamante ne xale bi mu ngi koy indi ngay gis géejawaay bëgg gi ñu ko bëgg taxawaay bi ñu koy taxaw gis nañ ko mel ni Lac de Guerre 2 ànd ak moom entraînement di ko jàppale di ko éppale gis nañ ko mel ni Alioune Seye 2 gis nañ yaakaaru géejawaay yëpp ni ñuy épauler xale bi di bu ndaw ñu koy féliciter bu baax ci ndam li nga xamante ni am na ko ci digganteem ak Reum di encourager Reum di ko wax yow tamit xale nga loo xamante ni yëmbal Malika benn baraak gépp am nañ ci yow yaakaar defet bi la ñaa bu ndaw daan mën na laa dellu siwaat ci làmb làmb nag daan la ak daan boo fàttali ko sa digganteeg deux ziga fële ci arène national ndam lu rëy nga fa am boo ñëwaatee ci rëm boo ñëwaatee ci euh, xale bi di ñaa bu ndaw bëree def erreur mu daan la jaadu na ñuy taxaw tuuti rek ci rëm mooy erreur bi nga def ci làmb ji mooy moment bi nga xamante ni war ngaa jàppanteeg ñaa bu ndaw bu jàppante jotee rek jàppanteel bu xeex jotee xeexal mais da jàppante ba pare bëgg a xeex di hésiter ci ñaari paa yooyu moo waral ñaa sàcc la yegg la fu sori daal na jël bu amul benn werante ñuy félicité waat bu baax ñaa bu ndaw di encouragé ram mbokk yi noonu la ñuy def rek barastiku dem fi nga xamante ne mooy stade Iba Mar journée Mouniang production grand combat bi doxoon ci BMW ak si du jàmm gën su ko defee ñu dellu si waat ay coo ñu dem arbitre bi sifflé na mbokk yi TV wala 2S rek la def. lamb am foo war a ak foo warta dóor arbitre bi àtte dem na ardo ndaysaan combat bi mbaa du mujjee fii alo alo Demba waay la ok Demba waay la ah mu tuus day tuus wala ah bàyyi mu tuus ok ay jël aca tuus leen aca leen arbitre bi jox na safal victoire bi adversaire bi mënatul bëre waaw waaw daan na ko Caaka Diop numéro 2 moo la féete càmmoñ moo ginnaaw ndeysaan Malick Ngom mooy arbitre laaj na pare naa Malick sifflé na Caaka Diop Thiatou Fouday dóorante xeex dóor mu daanu Thiatou Fouday dóor na ko mu daanu wala déet daanu na daanu na kiri jàmm ci kër Mbaye Fall yëngu mu ngi nekk askan bu yaa yaraax ndeysaan ikiri askan bu yaraax xew cokkaas na ndeysaan cokkaas na doon na ko jël na tànk ba jël na tànk ba takk na ko biñ na ko da koy daan wala déet bañ na yëngu leen ndeysaan sakaase daan na ko waaw waaw daan na ko pare nga maam góor pare nga arbitre bi sifflé na saa waalo reculé na ndeysaan ma ngay léemu ngembo ngemb Lagos bi ñu ngi ñaar daw na jëli ndaysaan maam góor daaw na jëli ko mbokk yi ci stade Iba Mar mu ñang production ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar góor a ngi dóor saa waala jàpp na ngem lan moo nar a xew maam góor loolu baaxul saa waala daa bëgg dugal bopp bi ci suuf du am saa waala góor saa waala góor maam góor junior saawaalo songale na ko songale na ko bañ na caxabal caxabal caxabal caxabal caxabal daan na ko daan na ko daan na ko arbitre bi sifflé na mbokk yi samedi ndeysaan 19 mars 2022 Mouniang production grand combat si di Iba Mar Mouniang production moo ñu fi woo il est samedi 19 ndaysaan ñoom ñaari xale yi ñoo dox ci diggante Sidi jàmm gën ndaysaan jugee kiri jàmm gën Sika Mbaaw war a bëre BMW ndaysaan mu nekk écurie Bada Dione ndaysaan Bada Dione nga ci tribune bi jàkkaarloog moom di ko xool ndaysaan mbay guy gee ngi noonu ci ga daan ko yi gis ngeen combat boobu dox ci diggante am BMW ak jàmm Sidi Diamaguène BMW maa ngi leen koy wax mbooloo mi muy indi entraînement bi mu yor ak équipe ba da jonn bi mu nekk encadrement yi nga xamante ne ñu ngi topp ci ginnaawam bàyyi leen ko xel xale la bàyyi leen ko xel parce que yor na confiance làmb bu nee def naa sept combat sept victoire mosul am défaite yor taay bi yor bëre bi yor sañ-sañu làmb ji bàyyi leen ko xel si du jàmm gën ñu ngi lay encouragé bëre nga indi nga li nga waroon indi mais bisu defet du bisu ndam te bisu ndam di bisu defet yàlla suñ borom moo tuddoon ni keroog lépp loo mën a def rek xale bii di BMW da dalay daal entraîné nga ànd nga ak say mbokk fonk nga bis bi mais da nga am erreur yoo def ci combat bi mooy da la tendre piège piège boobu mu la tendre na ci nga dugg te boo duggul ci piège bi rek juumoo mënoo daal mais amul lenn lu ma la lu ma la mën a wax ci combat bi ci benn erreur boo xamante ni def nga ko mooy jàpp nga ni tànk bi yegsi na nga koy jéem a tegal siis moom ndeke daf la séen ci biir séen boobu mu la séen moo waral mu yokku la moom it dóor la benn euh, caxa espèce su caxabal wala caxabal bu ndaw accompagner ak yow ba nga daal ñu lay encouragé bu baax a baax di wax làmb nañ leen bàyyi xel bu baax xale bii di BMW bokk na ci làmb dañuy barastiku rek jëm fi nga xamante ni mooy arène nationale ba tey ci dimanche bi 20 mars 2022 jam production woowoon ñu grand combat bi doxoon ci diggante Kaaw Gourdin ak Ronaldinho mbokk yi dañuy dem stade ba dellusi ci combat wala ñu dem ci combat yi taxaw seetlu ci combat spécial bi ñëw ci grand combat bi ay ca ñu dem. jëli na ko di daan lii laal la lii laal la. fan baa ngi di waaj a siffler combat spécial bi dox ci diggante jeex jàmm su gaynde jeex jàmm moo woon ginnaaw su lay gaynde nga jàkkaar lool. ndaysaan jeex jàmm Souleye Gaynde jeex jàmm moo la féete ndi joor Souleye Gaynde moo la ndi càmmoñ drapeau soxna Aïda Saliou ndaysaan jigéen boo xamante ne jigéen bu mën góor la day dara jaale ko bis mu ñëw ànd ak délégation bu rëy ci biir ba gis naa ca rik Ali Beuz Papi ak xale yi Parcelles Unité 3 taw na jëli ko sooy génnee tax daan na ko lu daan na waaw waaw jeex ngeen jeex daan na su lay génne. mbokk yi arbitre grand combat ba ngi noonu dox ci diggante Kaw Gourdin ak Ronaldinho mbokk yi dimanche 20 mars 2022 arène nationale journée Production Kaw Gourdin door na Kaw Gourdin door na dañuy waaj xeex jëli na jëli na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 mbokk yi jërë ngeen jëf gis ngeen spécial bi nekk ñaari grand combat yu jamaïcain jël def ko ci benn journée ñetti combat sax la boole grand combat bi moo doxoon ci diggante Gora Sock ak Fils de Balla Gora Sock am blessure ñu reporté combat bi ba bis bu Gora Sock yóbboo guérison am fële ci CNG ñu mën a jàppaat date promoteur bi day xaar mais ñu gis combat bu neex dox ci diggante Souleye Gaynde ak Jeex Jàmm mbokk yi bàyyi leen xel xale bi di Jeex Jàmm mbooloo mi muy indi ci làmb du mbooloowu xale mbooloo moomu ku nekk indi na ko ci làmb ba waral mu bëre grand combat te grand combat bi jotu boo xoolee Ama Balde mbooloo moomu la doon indi boo xoolee ku mel ni Siteu mbooloo moomu la doon indi mbooloo moomu xale yàgg na ko indi ci làmb vraiment ba yegg foo xamante ni ci làmb séntuwuñu ko woon bàyyi leen xel bu baax xale bi di jeex jàmm ndaanaan la ci làmb ñuy encouragé su lay gaynde mais di jaajëfal bu baax soxna Aida mu sëriñ gis nañ ni mu ñëwee jëmmal bis bi wane na ni jamaïcain doomam la rakkam la te njabootu làmb ñëpp la boole njaboote soxna Aida bu ñu ko gisee mu ñëw ci làmb ak ni mu mel ci li muy yëngu ci ñaan ñëw na fa mu war a ñëw ndax ñaan kat kat mbëru làmb da cee jiitu bu jotee avance ñëw ci yow balaa dugg ci combat ñëw ci yow kon bu ñu la gisee nga ñëw ànd ak délégation bu rëy ñu mënuñu lu dul di la jaajëfal di la ñaanal jàmm di félicité bu baax a baax Kaawu Gourdin Ronaldinho mbokk yi dafa nekkoon combat boo xamante ni ñu ci bari ci làmb juumuñu moom njortoon nañ ni technicité dina feeñ ci làmb ji ci ñoom ñaari xale yi waaye gis nga kii di Kaawu Gourdin daan Ronaldinho jël bu amul benn werante Kaaw Gourdin wanewaat na boppam ci làmb Kaaw Gourdin wanewaat na tolluwaayam ci làmb ñi nga xamante ni nag la laaj ci làmb war nañ ko mën a jël ndax mbër moom bu bëriwul rek mbër mu ndaw la Kaaw Gourdin daan na laaj na armée bu benn baraaj jaadu na Kaaw Gourdin Alioune Sèye Junior jaadu na Kaaw Gourdin ak yeneen xale yoo xamante ni mën naa bëri ñoom ci làmb jaadu na làmb ji daal fi mu toll nii Kaaw Gourdin dafa lal basangam ku ko bañ a jël rek danga ko ragal ñu ngi koy félicité bu baax di encouragé Ronaldinho di ko wax làmb noonu la ñaari damay dugg waaye benn ay génn maa ngi gis yaa ngi contacté naan amoo quatre appui teg na ans waaye ku ci nekk am na lu la règlement bi may ku ci nekk li la yoon may rek demal def ko mais gis naa ñoom ñaar kaaw Gourdin ak Ronaldinho ñu def geste boo xamante ne mbëru làmb yi dañ ci war a bàyyi xel làmb jeex Ronaldinho dem ba ci mikaay euh, kaaw Gourdin waxtaan ak moom saafanteeg moom joxante loxo ñu ànd bokk benn porte bu ñu génnee te coow amul dara amul xale yi gën leen a roy loolu ci lamb geste yooyu dafa nekk geste yoo xamante ni saa su ne dañ ko war di wax parce que xale yi di ci bàyyi xel boo gisee soq signature contrat moom franc noonu lañ def bokk benn dend benn siège di wax ku ci nekk di jaay kombaam te kenn dépassé wu ci kenn ci lamb geste yooyu dañ ko wara a saluer ci lamb di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi dañuy dem fi nga xamante ni mooy stade Iba Mar ci dimanche bi ba tey le bi prédi production moo ñu fa woon grand combat bi dox ci diggante Brise de Mer numéro 2 ak Bébé Diouldé su ko defee ñu dellu si waat doomu den. Ngémb bee mujjee beige. ak waa moo ngémboo ngémb vaccin féete allo allo awa waaw plaqué na ko plaqué na ko da koy daan saa waala daan na ko waaw. combat bi dox ci diggante capitaine ak Ndoumbane. capitaine iki Songane Gueye ca Tëngéej capitaine Badar Dione capitaine yi moo ñu féete à droite moo ñu féete à gauche mbokk yi noonu ci diggi géew bi ar baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Bébé Diouldé moo féete à gauche Brise de Mer moo féete à droite baa ngi wax ñoom abit baa ngi laaj ay jugeem abi laaj na ki nga xamante ne mooy de Mer numéro 2 pare nga vingt heures une minute le 20 mars Bébé Diouldé Brise de Mer numéro 2. tànk dem waaye est-ce que Bébé Diouldé dina ko Bébé Diouldé nga dox ci kaw Brise de Mer Brise de reculer de mel na ku ko ragal Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer wàcc na Bébé Diouldé dàqaat na ko ñoo ngi xeex génn na Bébé Diouldé taxa Bébé Diouldé taxawal Brise dafa mel ne stratégie lay bëree Brise mais am na trois avertissement arbitre sifflé waat na Brise Mer Bébé Diouldé tànk ba Brise de Mer jël ba lu daan da daan da daan ko ko daan na ko Brise de daan na ko indi na stratégie la andi daan na ko Brise de daan na Bébé Diouldé ay ca mbokk yi gis ngeen combat boobu doxoon ci diggante Bébé Diouldé ak Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de nax na la ci bëre daan c'est normal c'est normal làmb du sport boo xamante ni saa su ne ma wax ko dëgg la déedéet que làmb bu doon réalité saa su ne mbër daan ku ko mën saa su ne mbër daan ku ko ëpp doole saa su ne mbër daan ku ko dàq xeex waaye nag dafa nekk sport boo xamante ni ni ñu koy waxee un esprit sain dans un corps sain lañ koy defee mooy di xalaat di xool stratégie di xool nan nga mën a jaar ci say adversaire ba daan leen moo tax gis nga brise de mer daf la wan ni dama laa ragal te ragalu la génn na saaku bi ñetti yoon jël avertissement loolu yàqul dara ci làmb benn song la bëggoon benn song ba bu mu ko amee làmb ji jeexam ñu lay encouragé bu baax bébé de di félicité brise de mer di la félicité bu baax sa diggante tey mag si wane nga sa bopp bëreek moom kaawoo ko wane jom wane ngar mi ba daan ko sa diggante bébé wane waat nga sa bopp wane jom wane ngar mi wane fulla ak fayda ba daal kon dañ lay féliciter bu baax di wax ni bàyyi leen ko xel ci làmb moom Brise de Mer mu ngi def ay preuve ci làmb mu ngi góorlu te dinañ ko gën a waajal xam naa ni seeti ko incha allah rabbi ngir waxtaan ak moom ci lu baree bari ci làmb mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax mbokki di am kontante bu baax ci trophée bi nga xamante ni wasaare làmb am nañ ko muy cent mille abonnés yuñ dugg wara a mën a gërëm ñu baree baree bari ñoo xamante ni vraiment euh, jàpp nañ ci liggéey bi ànd nañ ceeg wasaare làmb ndax ñu ci bari du ñu jàpp ni rek wasaare làmb benn nit la déedéet équipe bi équipe bi nag tey laa bëgg a sargal ànd ak ñoom ci lii ndax muy naaj muy taw muy ker muy guddi ñoom ñëpp vraiment dañ ci liggéey liggéey bu am sol du ñu fàtte benn yoon du félicité ñi nga xamante ni dañu fi nekkoon yàlla suñu borom dogal nekkatuñu fi dem ci yeneen bërëb wala nekk ci yeneen yi liggéey dañuy njëkk a ki nga xamante ni mooy ATM nekk fële ci États-Unis ñu ngi lay félicité bu baax di la wax ni raay bi sa raayal mu nekk nit ku baax moom ATM mën bu baax a baax a baax li muy def nekk nit ku baax nekk ci waar woo xamante ni mu ngi ciy bay liggéey bu am solo bu ma jumat Abdou Diouf la njëkk a jël fële ca États-Unis moom ATM vraiment jël xale bi di jël na fa dumbul jël na fa Efran Rouge jël na fa Yanda jël na fa xale bii di Pape Sène jël na fa ay ndaanaan yoo xamante ni vraiment ñu nga ca États-Unis mu fay liggéey liggéey bu am solo kon ATM bravo ñu ngi lay félicité bu baax di la ñaanal jàmm di la wax namm nañ la ay ca champion yaa ngi foofu te liggéey bi du jeex ATM amul dellu ginnaaw gaynde ga di félicité bu baax a baax a baax suñu papa nga xamante ni day toog fii di ñu décortiquer làmb muy Pierre Birahim Ndiaye lii ci sa liggéey la bokk ñu ngi lay félicité bu baax Pierre Birahim di la ñaanal yàlla suñu borom defal lu gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ne xam-xam la nga def ko ci njabootu làmb bi nga ci bëgg yàlla na ci yàlla defal lu kaw sa njor te kontaan nañ ci yow bég nañ ci yow suñu papa nga suñu kilifa nga te suñu papa ak suñu kilifa googu moom ngay xës di doon ba ilaa yow mi abadan mbokk nga papa nga waaye xarit nga ngay jaajëfal bu baax père Birahim di félicité ki nga xamante ni mooy le PDG Baabu Mbay ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom it mu ngi jàpp ci liggéey bi mu ñuy gën di épauler di ñu gën di taxawu ñu gën di conseiller ci liggéey bi rien que ngir mu jëm kanam ñu ngi koy jaajëfal bu baax di jaajëfal famille di jaajëfal képp koo xamante ni ñu ngi ci ginnaaw baabu di ko jàppale ci liggéey bi di féliciter bu baax a baax a baax sëñ Basiru moom mi nga xamante ni mu ngi fii ci wasaare ñuy ànd di liggéey vraiment mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu rafet waaye duma fàtte ki nga xamante ni mooy paate paate nekk suñu kilifa yàgg ànd ak man di ma filmeel di monteel di ma dugalal ba tey mu nekk ci loo xamante ni vraiment ay yitte la yoo xamante ni permettre ko loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal gudd fan moo nit ak wér ba lépp loo xamante ni bëgg na ko yàlla defal ko ci lu kawe njort di félicité ki nga xamante ni maa ko tuddee la cadre des cadres ni aadam nekk ci site bi vraiment ñu ànd fu nekk ànd nañ dem nangaan sàmm dem fu nekk te maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu àndee noonu génn réew mi dem indi ay image yoo xamante ni sénégalais yëpp dañ ciy kontaan di ko féliciter bu baax di féliciter Ousin moom it mu ngi ci liggéey bi di góorgóorlu di féliciter bu baax Khalil di euh, félicité Ibrahima juste Mbène maa ngi koy félicité bu baax di félicité Fa di félicité ki nga xamante ni mooy seen Omar ak képp koo xamante ni yaa ngi wasaare rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ki nga xamante ni mooy Omar Swiss Gold di ko wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk ak yow Assane Fall borom global textile maa ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk ak yow soxna ayda moom mu Serigne Saliou maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk ak yow di ko bokk samay famille di ko bokk sama xarit Babacar borom Espagne ak waa koñ ba yëpp Cheikh Bodian su ma ñëwee wasaare tey vraiment ci sa loxo la jaar sa loxo la jaar nga woo paate paate woo baabu ba tey mu ñëw wasaare làmb intégré la oustaz Cheikh Bodian maa lay siyaar bu baax yow oustaz Iran Ndaw mi ngi lay tooñe di félicité bu baax di félicité suma grand fàllu Ndiaye vraiment jàpp na ci liggéey bi conseil yi gis naa ko Ahmed Boutique suma mag suma famille yëpp maa leen di jaajëfal ku lim doo juum waaye da dul matal commando sama xarit maa lay jaajëfal bu baax di bëggee ñëpp waa koñ ba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax ni maa ngi leen di bëggee waat bu baax a baax a baax doo lay jën ndox doolay woykat public doole doolay wasaare làmb yéen suñu mbokk internet yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen